jërëjëf mbokk yi seetaan lu aboneel suñu chaîne YouTube Biorahma nga daal di bës ci lu xonq loolu bës ci cloche bi loolu moo lay may saasu ne lépp lu ñu dugal muy waxtaan muy la am solo nga bokk ci ñi ko njëkk jot kon mbokk yi li ngay seen mooy saabu collagène 100 pour cent vitamine e. saabu collagène 100 pour cent vitamine E saabu la boo xam ni dafa gën ci saabu yi. ndax la ca nekk te ëmb ko mu doon ay principe actif yoo xam ni nit ci boppam daf koy soxla ngir deru dundam mën a yoŋ mën a yaañ mën a rafet mën a liis te xam ngeen ne collagène ñun dañ ko soxla ci dund ndax mooy tax der wi gi gën a mën a yëg boppam ci lépp lu muy def loolee lañu xam moo tax seen cabinet Biorahma du tàyyi mukk saa su ne di fent di indi lépp loo xam ne gis nañu ne war naa mën a soxal askan wi mu doon loo xam ni day dëppook ak lu naturel muy bio mu sukkandi ci gàncax gi ak lépp loo xam ni lu bio kon yow mi seetaan ak déglu am ay taasu kanam jëlal yow mi am ay rit jëlal yow mi am ay vergeture jëlal yow mi nga xam ne sentir nga daal sa yaram bi am ay bouffée de chaleur yoo xam ni boo ci jógul mën na laa indil jafe-jafe jëlal numéro téléphone bi wala nga dugg ci chaîne YouTube Bio Rahma su dee yaa nga dëkk ci yeneen i bërëb mën nañ ko am ndax am nañu ay ndaw yu ñu toogal ci yenn yi fu mel ni Thiès lu mel ni mbuur lu mel ni Louga lu mel ni Saint-Louis lu mel ni Casamance ak fii nga xam ne moo di Cambérène ak Thiès kon mbokk mi jëlal téléphone bi savon collagène vitamine E mën nga ko am moo ngi noonu.